waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di kontaan trop ci ndaje mi euh, yàlla def na jàppoon nañ ko yàlla def ñu somb ko mais tey la ko yàlla dogal te kattan suñu borom lii moom mën naa ne musta am ngaay tey nag ñu ngi ko def fekk si suñu jarbaat bas suñu jàll di ko jàppale ci wàllu politique bu ñu jàppale ànd ci nag ak. Mbengue Gueye ñun ñëpp moom lañ bëgg fal mu nekk suñu maire moo tax ñun ñëpp di ko jàppale fi mu nekk nii kon foofu dañ sant suñu borom bu baax am nañu nag yaakaar bu baax parce que itam li ko gis ku ne da nga xam ne lii am na yaakaar su ma defoon daal lii daal ku ci bëggul ku boo saantul sa xel du dal kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax nag di sant mbokk julli yëpp di ngi nuyu sama xarit sa mbokk Abou Diop di nuyu di nuyu Modou assurance. du nuyu mbokk yëpp Pape Djité ma xeet sama goro sama xarit sama àndandoo tam di ko jàppale moom itam ma jàppale ñu koy nuyu di ko gërëm. kon da am yaakaar ci moom que nit soo amee yaakaar ci sawar bu ko foog naa ne moom ku yor maire Ngaye yaakaar naa ne moo la ko dàq yor moo tax ñu am sawarte gunge ko pour bëgg ko fal maire Ngaye te kat si kàttan suy borom tam loolu incha allah dina nekk kàttan suy borom. waaw parce que am na lu ko yàlla may ci wàllu xalaat ak wàllu xel. ceet yàlla may na ko itam euh, euh, li tax nga yoru maire mën a sàmm sa maire mooy sàmm sa ngor mooy ay moyens yàlla may na ko ko te bu fekkee yàlla may na ay mooy da nga mën a sàmm sa ngor ba alal maire doo ko laal kon lépp loo xam ne lii yor na ko maire yi kon lañ suñu xel di daal ni fa mu war a jaar la mu war a def dana ko def euh, saa yu côté bis bis fa mu war a jaar dana ko jaarale lu mu ci war def it cent quatorze moom dana ko def du ci sikk il y a man maa fi représenté Benno Bokk Yaakaar Je dirais quand même, c'est moi qui ai créé ici Beno Bokoyar, ce qui n'existait pas. Tout le monde le sait ici à Marseille. Et j'ai toujours représenté Beno Bokoyar sur cinq élections que j'ai gagnées. Maintenant, par exemple, Ben Alchimie je pense que ça doit être des choses à un autre niveau. Benoît Bakayar n'est pas, pas entre mes mains. Alors que j'ai gagné les législatives, j'ai gagné le référendum, j'ai gagné le, la j'ai tout gagné. mois jeune ne peux pas investir 10 ans dans ma commune sur mes propres moyens et mes relations et laisser tomber. Ça, il n'en est pas question. damay jël li ma moom li ma dëkk bi jox parce que jusqu'à présent dëkk bi moom may jox seen bopp te ba léegi weddeeku ko te yaakaar na ne bii ñu jëm moom dana leer nañ ci bopp ñëpp clair que ce sera sans Benno Bokk Yaakaar parce que demu demuma ci Benno Bokk Yaakaar coalition bi am Pape Mahi jiite la àndal Bassirou Niang ba pare As Diagne mi évalué yàgg ci politique bi xool na analyser xam ne ñun la war a teg loxo pour ñu ànd ak moom. bu ma ñëwee coppite bi seen coppite ngaay yomb na d' abord ngaay bëri ay ressources se trouver des ressources additionnelles benn. deuxièmement il faut faire une gestion transparente une concertation loolu moom manqué ngaay imagine toi aujourd'hui on nous donne des poteaux 200 poteaux de de de lumière euh, de de, de, Mais le maire n'a pas fait de concertation. Il reste dans son bureau tranquille, tout dort, il, il met ses poteaux là où il veut, sans concertation, ce qui crée une frustration énorme auprès de la population. Parce que 200 poteaux du dara mais bu fekkee da nga koy distribuer wax teg nit ñi ngeen d'accord ci kàddu kooku ko amul tam du la métti y a pas de concertation du tout à Mekhe dafa bari lu ñuy nëb yu lëndëma lëndëma lëndëm yoo xam ne xam nañ ci lu bari boo les archives même ne sont pas à la mairie de Mekhe boo demee xoolal nga dem xool tableau d'affichage y a rien on a jamais rien affiché aucune règle n'est respectée mais ñun ñun duñu ay sujet nous sommes des li nu moom dañ koy jël. am naa ci yaakaar parce que boo ma toppeen ñaari fan ci biir ngaa di nga xam ni ah am na lu ma fi man te li ma fi mën nag wane naa ko parce que nee naa man du ma def ay engagement naan suba lii laay def ginnaaw suba li man damay def bilan li ma def ngaay ci fukki at yi ga suma doomu ngaay boo ko fi mos a def benn commune bi mosu ko fee def li ma lu toll li ma def tam ñun suñuy koppar lu ñu ci am su ñu ko bàyyi ci commune bi mais nan nu rendre compte au fan lañ ko dugal amul benn brique boo xam ne mën nañ ko génne ni la bi moo ko fi teg amul maa ngi défier maire bi pour mu wax amul man daal sama liggéey c'est très simple c'est dans la concertation avec les gens li ñu am muy néew ak a bari boo bokk waxtaan ci seet nun koy doxale seet ay ressources additionnelles xam na les points forts de Mekhe xam na les points wax ju bari ji nag ñun dañu soxlu. Alaaji Bassirou Niang waaw xam nga tey il faut ñu am lu leeral aussi dafa am benn mouvement bu ñuy wax dëgg rek la vérité mooy def tey entrée politique am mu coïncider ñu def coalition war a jël commune bi pour liggéey ko si kattanu yàlla comme dañuy def nag sunu entrée politique tey. yàlla dogal mu am ñu àndal ñoo xam ne dañoo war a ànd ak ñoom pour jël commune bi pour liggéey ko ñu profité bokkandoo def ko benn meeting. sunu ànd nag ak El Hadj Mamadou Mbengue Guèye sabab bi El Hadj Aslan mii la ndax bi ma sosee sama mouvement ñëw fii samay mbokk waxtaan ak ñoom dan ma demal nga ànd ak As Diagne bi ma ñëwee ànd ak As Diagne mu joxoñ Mamadou Mbengue Guèye bi ma ko joxoñee ma jàpp ko te réccuwuma ko ndax man valeur laay jàppee nit nit ku baax. ku yaatu ku tabe ku dimbale ay mbokkam ku bëgg dëkkam bëgg commune am valeur yooyu gis naa ko si moom bi nu àndee nag yàggul man nag lu ma wax lu ne daf ma leer parce que yàlla dogal na képp ku may àndal damay ànd ak yow ci ngor rek bu ma gisee ci lu baax lu ma war a wax ma wax ko bu ma gisee lu baax su yow lu ma war a yor roy ma roy ko su ma ko gisul ma dem toogi jafe-jafe commune bi moom li la El Hadj As Diagne wax El Hadj Mamadou Mbengue Gueye wax la rek moo si nekk moom li mu wax doy na sëkk parce que moom dafa am bilan te nekkagul maire dafa am ay réalisation yu bari yu mu def si commune bi si gàttal bërki dem ouverture des classes deux cent cinquante sacs pour ay élèves ak seen matériel scolaire sac bu nekk valeur am ëpp na trente mille la indi fii maye ko te alalam la moo ko moom xam nga loolu rek déjà doy na bilan te loolu ay at a ngi mu koy def hôpital bee boo demee ay jëfama nga fa commune ba jënd na camion bu jar ay millions yu bari jox ko commune ba kafa fa nekk ni comme def na ci turam moom du nangu mu daw ndax war si woon def turam donc ku koy joxe da nga naan don de diw camion baa nga sa mairie ba garé pour ñu bañ a gudd si gàttal li mu fi def bari na li fi def buñ ko doon lim tey du fi jóge te nekkagul maire ki la nag kaay ndékki kaay añ bu la nee di nga reer war nga koo gëm nit ñi nanu yeewu moom xaarul la nekk maire pour def dundawul commune bi da koy dundal loolu xamoon naa ko si moom daanaa ko dégg waaye bu ma diggee si moom gis naa si valeur yoo xam ne daal vraiment euh, rëccu naa li ma ko doon yeex a xam moom jusqu'à présent c'est le responsable de l'APR au niveau de la commune de Mékhé mais comme Macky Sall moo wax ni maire yi leen ba bàyyi la ñu toog yéen ñi si des dem leen ngeen wuti jàkkaarloo ak ñoom génn benn slogan je gagne ou je gagne loolu la wax en politique tendance dafay dundal parti Macky Sall c'est un fin politicien tendance dafay dundal parti parce que kii bu xëccee kay xëcc opposition du am dara waaye du tee waaja moom bu soobee yàlla ah bu nëgë ni korogee heure bi dina fekk mu takki bagaasam dem Côte d'Ivoire dégguloo dama la le slogan qui a été choisi par le président de la mooy je gagne ou je gagne ñun nag bu soobee yàlla dinañu gañe bu gañee nag Macky Sall moo gañe dégg wax